moom mooy Muhammadu Rasulullah sawooy waa jaa ngi nii dama yoon ca la Muhammad lu fatin fa maanas duru illa nabi kaaladu waaw ana ñi bëgg Muhammadu Rasulullah la kasaatu lay maa gën jeer mi mi ali ya dama lasmaaw yoon ca la muhammad jëmu jooje yow yaay muhammadu rasulullah mu ngi nii léegi lañ ma ko jox fi la amee douze ans naa ko fu waa jaa ngi te mooy yonent bi moomee douze ans lañ ma ko jox